أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki jullit yi nu ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey nu toll ci suura al araf tey bi iznillahi tabaraka wa taala ñuy jël juróom benni aaya aaya 59 56 60 61 62 63 64 aay yi nekk sunu kanam sunu borom subhanahu wa taala dina ci jàngal juróom benn mbir yooyu ba ci jiitu mooy taqrir nubuwatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ka nubuwatu nuh alayhi salaam aaya yaa ngi ñëw di ñu fàttali ak di ñu jàngal di saxal ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekku yonentam yàlla la tabaraka wa taala moo ko saxal ci alquranul karim comme ni mu saxalele nuux ne yonent la moo ko yónni noonu la saxale ne muhammad alayhi salaatu wasalaam ci ndawam yi la bokk moo ko yónni comme ni ngeen xamee ni ngeen jàngee ne kaw suuf sunu borom subhanahu wa taala yónni ne fi cent vingt quatre mille yonent cent vingt quatre mille ñenn ñi ci ñi ko doon lim dañu ne nuuxa ci jëkk muhammad alayhi salaatu wasalaam moo tëj bunt bi kon sunu borom subhanahu wa taala dafa saxal ci aaya yi nekk sunu kanam ne muhammad ndawam la moo ko yónni comme ni mu ko saxalalee nuux ñaareel bi mooy taqrir wa taakid tawxid wa bayaan maana laa ilaha illa allah aaya yi nuy jàng tey mu nekk sunu kanam daa ñëw di saxal di dëgëral kennal ak yàlla mbokk yi bépp diine bu amul kennal ak yàlla diine boobu baaxul diine foog ñu kennal yàlla foog ñu def yàlla kenn yàlla kenn du ko bokkaale waaye aaya yi dañoo ñëw di leeral lii nuy dund te mooy laa ilaha illallah lan mooy maanaa bi lan mooy maanaa laa ilaha illallah tey bokk na ci li ñu indil jafe-jafe indil ñu ay problème mooy nun ñëpp ñu nekk ay jullit di wax laa ilaha illallah te nu ëpp ci ñun xamuñu lan mooy maanaa bi xamuñu lan mooy charte yi xamuñu lan mooy meññeef yi maa dañuy làmbatu rek fekk nañ sunuy baay naan laa ilaha illallah ñu daal di ñoom tamit ñun tamit laa ilaha illallah moo tax gis nga fu nekk lañ koy fowee partout di ko caaxaane te xam ngeen ne laa ilaha illallah dafa am ay bëñ buntu pour mu ubbeeku foog mu am caabi laa ilaha illallah caabi la mais caabi ju am ay bëñ caabi joo xam ne suñ ko dugalee dafa war a ubbi kon caabi ju bu amul ay bëñ du ubbi beneen bi mooy laa ilaha illallah dafa am juróom-ñaari charte charte yooyu bu ko nit dëggalee laa ilaha illallah am wér su fekkee nit dëggalu laa ila charte yooyu laa ilaha illallah am du wér léegi nag ñëpp ci ñun dañuy wax laa ilaha illallah xamuñu charte yi xamuñu baat yi lu mu laaj xamuñu lan lay nangu xamuñu lu mu bañ xamuñu lan mooy jubluwaayam xamuñu baat yooyu lu tax mu wàcc moo tax sunu diine bi tax suuf ñetteel ci li bokk tey ci liñ war a jàng mooy at tahzir min adabi yawmi alqiyama bi tazkiri bi ay dañoo ñëw pour nu war nu fàttali war nu moytandikuloo mbugalum yowmal qiyaam waaye naka lañ koy moytoo mooy nu fàttali nu ko waar nu xamal nu bis ba xamal nu xew-xew ya xamal nu dañuy dajeeg suñu borom kon dañ ko war a waaj mbokk yi voyage boo gis nit ki di ko tukki da koy waajal rawatina nag nga war a jóge àdduna jëm àllaaxira te tukki àdduna ak tukki àllaaxira du benn ñeenteel mooy ashaabul manafi min almarakis wa gayriha hum alladina yarudduuna daawat alxaq limana li munafatiha lil batil ñi nga xam ne ñooy ñoñi ñoñu mbaax ñooy def lu baax ñi nga xam ne ñoo yor ay centre centre yoo xamante ne doyewuñ ko dara lu dul jubal ci doomu aadama yi di leen waar ñooñu di waxe ci yoonu yàlla ñooñ ñooy ñi nga xam ne tey ñoo fi nekk jànkonteeg nit yi caaxaan yi waaye tey li doy waar mooy ba waa caaxaan lemee seeni bagage ne dëkk bi kenn mënatu ci dara caaxaan ka di jël place yi daal di koy occupé tey lépp ci ñun su ma nee ñun nag ñiy dund sunna laa ci jublu li ëpp ci ñun ñiy dund sunna dañoo yaacaaral dañoo yaafuus duñu daawa duñu leeral diine bi ku nekk yaacaaral lan moonu dal soo waxee ñu ne aleykum anfusakum laa yadurukum man dalla isa tadaytum yàlla nee na ngeen garde seen bopp soo jubee yow di julli di woor rek ku réer moom sa yoon nekk ci bu doon loolu la kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu mu ñëwee du woote bu doon loolu la kon yonent bi mu demee saxaaba yi ku nekk dugg sa néeg tëdd wala waaye yonent bi dafa taxaw ne leen balligu anni walaw jottalil ma doonte benn aay ngeen mën saxaaba yi tasaaroo ci kaw suuf ñoom ñoo ñu indil diine bi tey kon diine bi diine woote la diine bi diine yëngu la diine bi diine cawarte la du diine yaafuus waaye diine la joo xam ne dafa ñëw pour doomu aadama bi rawatina ab julit bi mu liggéeyal borom bi tabaraka wa taala pour ëllëg ci kennu xam-xamam ak li mu toll mbokk yi juróomeel mooy taqrir mabda al aqiba lil muttaqin ay dañoo ñëw di saxal ni ëllëg bu nu génnee àdduna ba jajeeg sunu borom ñay mujje xéewal ya mooy way ragal yàlla yi ëllëg bu nu génnee àdduna ba dajeeg sunu borom allaaxira ca pee yu sell ya ñay mujjee xéewal ya yàlla defar mooy ñooñu ñu naan almuttaqin kon looloo tax ab julit war a góorgóorlu pour bokk ci ñooñu te looloo tax yàlla binduñu mooy lan pour ñu ragal yàlla aaya yëpp yi ngeen di jàng ci alxuraan fu mu yóbbu doomu aadama yi mooy li taqwa mboolem ibaada jaamu yàlla luñ koy doyee mooy pour ñu am ragal yàlla julli lool la koor lool la joxe azaka lool la aji màkka lool la tabaski lool la lépp lu ñuy jaamu yàlla teñ koy def fum ñuy yóbbu mooy ragal yàlla mbokk yi juróomeel juróom-benneel mooy amal qulub axtar min amal uyun ala saahibi ngumbaak xol xol bu gumba moo gën a dangereux bët yu gumba moo tax alquran ne innahu la taamal absar walakin taama qulubullati fi sudur yàlla nee na jalla jalaaluhu wa azza kamaalu bët du gumba bët léeg-léeg nga dégg ñu ne waa ji de du gis bët yi dañoo gumba waaye même ci àdduna da ngay gis yéen ñi toog fii tey di ñëw ci tafsir bi ñaata yoon ñaata weer wala ñaata at ngeen di gis oto bu rey gumba ku bëri lu mu koy gis nekk ci loxoom weer bu nekk da ngeen dégg oto bu rey na gumba gi semaine bu nekk da ngeen koy dégg at bu nekk da ngeen koy dégg di nga toog ñaar fukki at oto du rey gumba ña lay rey ah lu tax normalement ñan la war a rey ah ah waaye la moo tax léegi reyul gumba yi muy rey borom bët yi question la oto kay dëgg dëgg dëgg dëgg buñ ne rey na ñaar ñee kee gumba la kii day gis yow sa xel ci kan lay dem ci gumba gi parce que gumba xam ngeen lu muy doxee bëtu xolam lay doxee lépp lu muy def daf koy def ci dal day teey day xam doog a def ñun nag lan la ñuy doxee sunu bët nii rek rajax rajaxi waaw moo tax it gis nga fu njëm catastrophe rek wala yàlla ne bu leen foog ne bët yii mooy gumba déedéet xol yi ñooy gumba te xol bu yàqoo rek jeex na moo tax yeneen ne ala inna fil jasadi mudra ida salaha salaha al jasadu wa ida fasada ba mu eggali hadis lu mu wax ala wa hiya al qalb xol su baaxee doomu aadama bi baax xol su bonee doomu aadama yàqu na loolu tax ngeen dégg yu ñaanu yonente bi alayhi salatu wasalam allahuma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala taatik rabbana la tuaxizna rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana parce que xol dafay wëlbateeku al qalb wa ma sumiya al qalb illa li yataqallab xol dafay wëlbateeku ba pare ñun ñëpp suñu xol yi mu ngi ci kanamu yàlla ci kanamu ñaari baaraamam moom yàlla nii la koy def yuqallibuha kayfa yasha nii lay wëlbatee xol yi di ngay gis ku jub ba ci àgg rek yàlla wëlbati xol bi mu sànku nga gis ku dëng ba ci yàgg yàlla wëlbati xol bi mu jub moo tax yonent bi di wax ne yow yàlla yàlla na nga saxal sunuy xol ba mu bañ a wëlbateeku kon mbokki jullit yi aaya yi nekk sunu kanam di juróom-benn aaya ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala moom mooy nekk sunu darsa tey ñu ñaan sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu mu defal ñu dégg ak topp ba sunu làmmiñ bañ a tarxiis kàddu yàlla yi ñu bàyyi cheikh bi mu jàngal ñu aaya yi insha allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون وعجبتم أن جاءكم إنهم كانوا قوما عمين بارك الله فيك صدق الله العظيم جزاك الله خيرا yal na nu yàlla fay la yiw sunu borom subhanahu wa taala nee na laqad ca dëgg-dëgg man yàlla arsalna yónni naa nuuxan ndaw lu tudd nuux hada awalu rusul mu ne kii mooy premier ndaw lu yàlla yónni ci kaw suuf hada al abdu shakur jaam bi nga xam ne ab cantaakoon la yéen ñi nga xam ne tey baat boobu suñ ko waxee rek am na seen xel ci li muy dem nee na kii mooy nuux alayhi salaam kenn la ci ulul azmi min ar rusul ulul azmi ñaata lañ juróom yonenti yàlla tudd seen tur ci alxuraan ñaata lañ 125 muy ñaar fukk ak juróom ah yone yonent yi 120 25 ok yonent yi 124000 lañ 25 lañ tudd ci alquran 25 yooyu 5 lañ ci génne 5 yi ñu génne kenn mooy kan muhammad alayhi salatu wasalaam moom nu dund na nekk wootekat programme am woote nag dafa wuteeg suñu programme nun li ma doon wax sànq moom bi ko yàlla yónnee muy woote waxul dimanche ba dimanche laay def conférence comme ñun niñ koy defee waxul samedi ba samedi waxul vendredi ba vendredi waxul suma wàccee liggéey non awma temps temps yi quoi programme leen mbokk ba la waay moom dane daawtu qawmi laylan wa nahaaran yàlla man de damay woote guddi ak bëccëg yaakaar ne fa layam mu ne summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum ñu yaakaar ne fa layam mu ne summa inni da'awtuhum ñu yaakaar ne fa layam yàlla mu ne alfa sanatin illa xamsina aman junni at yu manqué juróom fukk waa ji nekk ci mbedd mi rek naan nit ñi jaamu leen yàlla du sonn du tàyyi 24 heures am dundam yëpp yëpp yëpp yëpp alxayaatu kulluha daawa ila allah dundam yëpp mu jox ko yàlla di woote junni at yu manqué juróom fukk muy woote di jubale nekk jàngalekat lii lépp mu dund ko moom nuux alayhi salaatu wasalaam yàlla ne maa ko yónni nuux ci ñan ila qawmihi ci ay nitam gis nga liñ doon wax ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bu nekk yàlla cib gox cib quartier cib koñ cib ruq cib dëkk la la yónni amma sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam yàlla moo ne ko wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaas basiran wa naziran wa daa'iyan ila allahi bi iznihi wa sirajan munira yow yonent bi yow muhammad maa la yónni ci mboolem nit ñi man maa la yónni ci ñëpp laa la yónni ñu weex ñu ñuul ñu zone ñu xonq ñu weex ñu ñoo fi am ci àdduna bi ñëpp la yàlla yónni muhammad kon ñi naan yonent bi yonent pour arabe la wala yonent pour dañu juum nañ ñun nit ñun ñu ñuul ñi amuñu yonent dañuy nax suñu bopp wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaas xanaa ñun kon duñu ay nit ay buubu ko la lañ waaw kon kay Muhammad mooy suñu yonent illa kaafatan linnaas yàlla moomu tabaraka wa taala moo yónni yonent yàlla nuux waaye mu amoon fu mu yem ila qawmihi moom nuux mu ñëw commencé woote comme niñ leen ko waxee léegi waaye gis ngeen programme am bi mu njëkk a takk ba mu déparé jóge këram di wooy ji qaala dana yaa qawmi yéen samay nit ibudullaha jaamu leen yàlla maanaam lii mooy premier problème mu nit ñi mooy yàlla tey tey lan mooy problème mu ñuy woote sunu sëriñ si lan mooy seen problème mooy maa ngi nii de sama maam nee na nuux moom waxul sama maam nee na wala lii loolu la qaala yaa qawmi qaala jaddi loolu la wax yaa qawmi ibudullah yéen nit ñi jaamu leen yàlla yëg leen ne maa lakum min ilahin xayru amu leen kenn kuy yàlla ku dul moom bépp woote boo xam ne nit ñi dañ leen xamal yàlla nit ñi dañuy dem waaye woote boo xam ne nit ñi ay xarfa fuufa lañ leen xamal ay ndomboog ay téeréeg ay gàllaaje gi pitaaw ay ah mën na nekk de mën na nekk mën ngaa suul fii léegi junni mu sax ñaari junni mën na nekk bul weddi ay di ngat yooyu du dem nit ñi duñ gëm yàlla tey jii mbokk yi yéen waa Ndakaaru waa Sénégal lu ngeen di jooy mooy rey ay xale wala xale yooyu ñuy rey wala armeel yooyu ñuy sulli néew yi wala wala wala wala wala wala ñi koy def luñ koy doyee lan lañ koy doyee li gën a rëy loolu ñu tax ñu koy def mooy ñàkk yàlla ku am yàlla doo def yooyu ñaari fan yi tegaloo ñetti fan xaw ma damay gis géej lu doy waar par fajar barki dem benn xale bu góor laa jiital maa ngi naan kii de day jànge xanaa ak ni mu solo ni mu rafetee ak saak bi mu boot maa ngi koy sën de loin ba ma jegeeg moom ma jékki-jékki rek gis ko mu taxaw ubbi saak bi génne yére sànni ci biir géej gi ma ne xoolal boo moo te dañ koy yónni wala mu jël ay yére jaamur wala am na ku muy xërëm dèjà bëgg a rey doo nit ko jël ay yérem tëmbal ko géej démb benn jigéen laa gis mu ñu- mu ànd ak ay gaa xaw ma escorte ñëw ba ci géej gi di gas gas gas gas gas gas ba mu xóot tëmbal ay téere dem man xoolal Sénégal mën nañoo nekk rek foo ko gis rek di xërëm xërëm xërëm ba kañ bokkaale barki démb fee sunu karafuuru jàkka ji karafuuru jàkka ji ñoo ñoo dëkk fii jàkka ji karafuuru jàkka ji lan lañ fa sotti ah gis nga ko guro gu nekk luñ ci def xool gis nga gis nga ko de allahu akbar wolof nee na booy fen soril seede yi waaw booy fen da ngay soril seede yi du dëgg ndax boo waxee par ñu ne ah ah ah waaye gis nga kii sax nee na gis na ko ñépp a ko gis jalu guro jal jal man fajar laa ko romb xaw moon sax lan la parce que boobu dafa lëndëm après bi ma desa bi ñu jullee ba may ñëwaat laa sentir ne lii ay guro la mais gisuma puso yi parce que dafa lëndëm après sama soxna moo ma ne ñun de bi ñuy dem marché la ilaha illallah jal guro yi fa romb guro gu nekk dañ cee jam benn puso loolu pour lan la pour am yàlla la wala xërëm la xool xool xoola kooku ñàkk tiyaaba nga dem jënd guro au lieu nga saraxe ko ki ñu ngi ko sarax nga leen dama am aajo ñaanal leen ma ñu ñaanal la ak nga dem jal ko foofu xoola perte ma perte alal am meru yàlla bokkaale bàkkaar boo xam ne yàlla du la ko dee ba nga dee dajak moom yóbbu la safara non mais lu waral loolu mooy xol yi ñoo yàqu moo tax Sénégal xërëm kese kese kese xërëm guddi xërëm bëccëg xërëm guddi xërëm bëccëg jigéen ñi dañuy xërëm góor ñi xërëm sëriñ ñi xërëm président yi di xërëm ministre yi xërëm ñëppay xërëm kuy ñëpp ku xërëmul doo dem nit ñi dañu war a xam ne yàlla rek lañu war a jaamu ibudullah jaamu leen yàlla ngeen yëg ne maalakum min ilahin xayru amu leen kenn ku ngeen war a jaamu te muy seen borom kudul moom mu ne su ngeen ko deful inni man nuux mii nga xam ne yàlla moo ma yónni ci yéen ma leen di avertir di wax ak yéen axaafu ragal na aleykum ci yéen adaba yawmin azim mbugalu bis bu rëy ba bu ngeen jaamul yàlla kenn lu leen ko ba ngeen dee toxu ci àdduna dem alaxira ngeen dekki dajek seen boroom bis boobu di yowmal qiyaama su ngeen dajek yàlla fekk da ngeen ko doon bokkaale di ngeen rëcc mu ne lii benn ci xissa yi la ci juróom benn xissa yi nga xam ne yàlla nettali na ko ay istuwaaru yonent nuux xuud saalex luut soib muusa alayhim salaam waaye lan mooy lan mooy njëriñu yàlla di ñu nettali histoire yonent yàlla noox histoire yonent yàlla xuut saalax soibu Musa ak Lut lan mooy njëriñ bi soo xoolee yonent yi yàlla limal ñu di nga fekk kenn ku nekk ci ñoom ba nga ñëwee di woote sëy nit lañ doon def dafa wuuteeg ñee lañ doon def ah wala nitu nu ñoom lan lañ doon def dañ doon jaamu ay xërëm ñoom ay photo lañ doon jaamu ay photo comme ñun tey ni ñu defee ay estati ñoom tam noonu lañ def ay estati lañ doon jaamu xaw mu nuux dañoo amoon ay kilifa yu baax kilifa ya dee iblis ñëw ci ñoom ne leen yéen maadaama di ngeen amoon ay kilifa yu baax kilifa yi dee nañ di ngeen leen di tabax fu nekk ku nekk fa nga doon toog di jàngale ngeen tabax ko foofu su ko defee ndeysaan bu ngeen leen xoolee rek seen xel dem ci yàlla ngeen mën a jaamu yàlla xam nga loolu rafet na trop waaye génération buy ñëw moo garaaw iblis bu lay alak moom xam nga lu mu ci jublu programme bu muy teg moom moo moom la tey tubaab yi di roy fi mu nekk nii gis ngeen dëkk bi nit ñi def yaramu neen nii jigéen ñi kenn solatul tubéy programme mu ñaata at la hmm? programme nga ñaata la xoolal gis ngeen lii programme mu ñaata la maanaam lu yàgg la léegi nag meññeef bi mu ngi doog a génn li mooy programme mu iblis iblis ne leen di ngeen di tabax photo ñooñu ngeen teg leen ko defee gars yi bu ñu ñëwee rek ndeysaan bu ñu leen xoolee rek jooy seen xel dem ci yàlla gars yi mën a léegi nag ña ko tabaxoon dee seeni doom ñëw commencé di raay allahu akbar macha allah léegi léegi lañ ma envoyé benn vidéo benn garab goo xam ne ñuy wër garab gi benn garab di wër garab gi fóon garab nga gis ku ñëw wéeru ndeysaan allahu akbar moo tax islaam ku jàngul lislaam doo mën a xam lan mooy tawxiid Seydina Omar dafa jàpp garab googu ñu naan bayatu ridwan garab ga yonent bi toogoon di jaayanteeg saxaaba yi Omar ñëw rek gis gaa yi saa yi di ku nekk yor sa paak garab gi la yonent bi toogoon bëgg ci am xas ñi bëgg ci am reen ñi bëgg ci am xob Omar ne goral leen ma garab gi ñu gor garab gi ba mu daanu Omar ne lakk leen ko ñu lakk mu ne gas leen ba mu xóot ngeen suul ko fi kenn du fi bokkaale ah loolu mooy diine moo tax Omar ba mu ñëwee ndeysaan ci xajaratul aswad dafa xool xeer bi xool ko ba caaga mu ne ko alimtu annaka xajar laa tadurru wala tanfa law lam ara rasul sallallahu alayhi wa sallam yaqbiluka ma qabaltuka xattu daal di koy fóon dem yoonam ni ko xeer kese nga doo jëriñ doo lor wallahi bu ma gisul woon yonent bi di fóon duma la fóon waaye damaa gis sang bi fóon la moo tax ma daal di sëgg fóon la ma nit li mooy diine ay sëñ bi toogoon na fi rek nga ñëw bërëngu lekkoon na caac kii rek nga ñëw sawaay dugal ko ci sa caaya mais déedéet mais ñu loolu moo ñu tardel diw naanoon na fi foog ñu naan fi diw toog na fi foog ñu toog fi diw ba kañ mais est-ce que diw moomu dañ la ne nga nga fu lu mu def yow nga def ko ban ban aaya la ban hadis moo wax loolu loolu moo ñu indil problème tey moo tax dëkk bi yëpp dëkk boo dem am na fa lu ñu fay bokkaale gis nga ñii yonent yi yàlla wax kenn ku ci nekk nuróowu ak say mbokk lu ñu doon def xoolal xawmu saalix lan lañ def benn jigéen moo leen alak yàlla daf leen indiloon gëléem bu ñu wooree tey gëléem gi naan bu gëléem gi wooree ñoom ñu naan ñu nekk ci loolu ñu sonn ñooñu loolu mooy seen musiba xawmu luut lan lañ doon def ay góor jigéen lañ Soayib Moussa Moussa lan la détournement public au lieu ñu topp nit benn waaye ñëw benn buur ñëw ne man mii la ñuy topp maa alimtu lakum min ilahin gayri mu détourné peuple bi yëpp foofu problème mu politique la Moussa ak Firawna problème mu politique la moo tax bi Moussa ne ko laa ilaha illallah mu ne ko da ngaa ñëw pour nangu suuf si état bi nga bëgg a daaneel ak ñu bëgg a coup d'état coup d'état jël régime bi moo tax gis nga loolu mooy problème mu àdduna bi tey sooy wax fenn laa ilaha illallah ak ñu ne attention état bi lañ bëgg a nangu ay nangam nangam kër kër ci commencé yàlla problème loolu la ñu waxoon Moussa yonent bi alayhi salaam yàlla daf koy wax lii pour mu nekk uslubu daawa ñii nii kenn ku nekk nuñ la war a woowee bokkul waa Quraysh la ko yonent bi alayhi salaatu salaam yàlla indil pour mu mun a daawa waa Quraysh yàlla di ko nettali xew-xew yii ndeysaan moom nuux alayhi salaatu salaam qaala ba mu leen waxee ne jaamu leen yàlla xamaluma leen kenn ku dul yàlla ragal naa ci yéen mbugal mu rëy ma nga gis sa dëkk boo dem am na ñooñ ñu naan almala mala ñoo xam ne bët bu leen xoolee daj leen la mooy almala ashraful qawm ña gën a tedd ca dëkk ba ru'usahum président ya njiit ya allazina yamla'una al ayn wal majlis ñooñ ñooy almala baatu mala li muy tekki mooy mbooloo moo xam ne buñ ñëwee ci place bu ñu toogee fees place bi hmm? su leen bët xoolee daj leen comme ñun ñii rek ñun ñi ci jàkka ji tey mala lañ waaye nag lan lañu uutee mooy ñooñu ay personnalité la ñuy nekk buñ nee nit ñi déglu buñ nee dem leen nit ñi dem buñ nee toog leen nit ñi toog dëkk boo dem ñii ñoo ko yàq almala nuux ñëw na commencé waaraate ñooñ ñu naan mala mbooloo moomu commencé na kii kii de yàlla da ko alak mook suñuy maam ñoo fi nekkoon suñuy maam dee nañ bàyyi ko fi mu dund ak suñuy papa suñuy papa dee bàyyi ko fi gis ngeen moo ngi nii ñun danañ dee bàyyi ko fi mu dund ak suñuy sët bu leen ko déglu de bu leen ko déglu mbooloo mum gis mu taxaw bëgg a waaraate moom nu yàlla mu ne jaalu asaabiyahum fi adanihim wastaxsaw siyaabahum ni la ñuy def jël seeni baaraam sànc noppi ba pare duñ ci yem muur ay kaala naan di yuux pour bu kenn dégg waa sayete leen mooy ni ni ñu paay doon def bu ñu jullee jumaa ba pare génn di daawa paay indi ay paan di tëgg di tëgg fii du jàkka ibaadu yi fii du jàkka ibaadu yi di tëgg di tëgg de ci jàkk billaahi wallahi watallaahi ñu wax seeni doom nañ indi ay paan jamono yooyu paanu weñ moo amoon paanu weñ paan yi ngeen di gis kawsu ay paanu weñ la woon jigéen ñi indi paan yi vendredi suñ génnee jumaa rek taxaw inna alhamdulillah gaa yi tëgg allahu akbar wala ñu teg rajo opaleur samp ñu opaleur bi rek ubbi rajo bi vidé ko ba nit ñi taxaw nit ñi dañuy am problème duñ mën a dégg ndeysaan waaye xam ngeen ne kàddu yàlla ay ay paanaki bool ak ay sabar mënu ko téye saa yiñ defee loolu mbooloo mi di gën a bëri saa yiñ sabotee mbooloo mi di gën a bëri saa yiñ sabotee mbooloo mi di gën a bëri ñu xam ne mënatuñ ci dara ñu dem police boole ji ndeysaan allahu akbar la ilaha illallah sunu boroom subhanahu wa taala mu ne qaalal mala mbooloo ma ñu ne kàngam yu bon yooyu min qawmi yi ca nitam ña gis nga inna la naraka la fi dalalin mubin fi dalalin mubin yow nuux yow day wax dëgg yàlla tas nga sunu yaakaar xale bu baax lañ la yaakaaroon nga ñëw naan ñu yàlla la yónni te ay naka la kala yàlla mun a yónnee bàyyi ñu fi ñun mag ñi xam nga lu xew ñun dañoo yaakaar ne yow mii ay jinne la laal est-ce que dofoo est-ce que amoo problème est-ce que sirmané woo est-ce que yow inna la naraka ñun de gis nañ la lii nga naan yàllaa la yónni dëgg-dëgg fii dalaalin yaa ngi ci réer boo xam ne mu biin bu leer naññ la ñun dañ cee xam dara leer nañu ne yow da ngaa réer moo tax nga nekk fi naan yàlla pourtant lii lii lii ñuy wax noonu ni moom lañ ñuy wax fii xale yi ñii nii ñii de dañoo sànku ñii de dañoo alku ñii de amuñu kilifa jinne seen kilifa ñii yooyu la la ñuy wax li ñu waxoon noonu la ñuy wax rek inna la naraka ñun de gis nañ la yaa ngi nii fii dalalin ci réer bu ñemoon fi baax na waaye ñu ne mu biin bu biir bu leer na ñu ne yow da ngaa réer ndeysaan gis ngeen ku yàlla yónni moom du xaste du xuloo du saaga munoon na ne yéen a ma gën a kannasu yéen yéen a ma gën a réer waaye qaala mu ne yaa qawmi yéen samay nit yëg leen ne laysa bi dalaala réeruma de sànkuma de walakin ni waaye man dëgg-dëgg rasulun min rabbil alamin ndaw laa lu yàlla tànn ma nekk xale juddoo ci seen biir ngeen xam samay wayjur yàlla tànn ma cëppeelu ma kaw asamaan yàlla ma tànn fii laa juddoo fii laa màggee fii laa yaroo xam ngeen ma yàlla ma tànn yónni ma ci yéen lan moo tax nag yàlla tànn ma mooy uballigukum risalaati rabbi pour ma jottali leen sama message borom yàlla dafa am lu mu bëgg loolu mu bëgg yàlla déema ko pour ma ñëw yéen ñi jottali leen ko est ce que gis ngeen baatu risaala nu ko nuux defee jamu xam nga lu tax message bi tàmbaliwul ci moom la mu la mu fekk cosaan bi loolu lay continuer moo tax mënoon na leen benn message dane ay message risaalaat da ko def mbooloo li aadama indi woon siis indi ko man nu moom laa ñëw di continuer ay message la yoo xam ne day dem ba Muhammad ñëw tëj ko moo tax soo weddee benn yonent weddi nga yonent yëpp benn ahlul kitaab dafa laaj benn boroom xam-xam bu tudd al imaamu Abu Bakar al Baqillaani ndeysaan boroom xam-xam bu bu garaawoon la dafa doon ak mën a discuter chrétien buuru Irak yónni ko ne ko demal nga discuter chrétien yi sa bu gudd mais fenn rek laay dagg indil leen ko mooy fii nii ba weddee benn yonent weddi nga yonent yëpp chrétiens yi ne ko yéen yéen jullit yi daal da ngeen ñoo jaaxal wax yéen ngeen di takk ci ñun ñun duñ takk ci yéen benn waaye laaj na ma ko barki démb rek ci Dakar mu ne ma man daal damaa jaaxle lu tax yéen jullit yi te jullit la kat mu ne mu tax yéen ngeen daganal takk yahud bu jigéen wala chrétien ngeen takk ko mais ngeen ne chrétien du takk jullit bu jigéen wala yahud du takk jullit bu jigéen lu tax loolu te daf ma bi ma bi may laaj daf ma bëggoon piéger daf ma laaj benn laaj ma ko tontoo pare mu ne voilà ñëw nga nag daf ma laaj ndax waaw chrétien mën na may jullit deret jullit mën na may chrétien deret ma ne ko waaw mu ne lu tax ñu mayante deret te duñ sëy dégg nga daf ma ne ñaari question laa am mais bala may bala nga may wax ñaar yëpp danga ma lay laaj benn boo tontoo pare ma laaj la beneen bi mais c'est simple li tax ñun duñ takkante ñun duñ leen takk ñoom duñ ñu takk c'est simple laaj bi rek mooy la imaam Aboubacar Baqillaani tontu woon lan la tontu mooy ñun jullit yi dañoo gëm Moussa wala ñun jullit ñi dañoo gëm Isa ñoom nag kon mënuñ ñu takk ñun dañoo gëm seeni yonent du dëgg moo tax mbirum maye deret mbirum àdduna la mbirum dund la mbirum humanisme la amma mbiru takk jabar loolu mbiru diine la wala loolu mbiru pas-pas la pas-pas kenn du ci am sentiment benn xale bu jigéen ba ma doon tubloo fi vendredi yi bële bële bële bële ci kaw bokk na ci lim ma wax man sama yaay jullit la woon soose la sama papa moo ko takk def ko catholique parce que sama papa catholique la woon waaw moo tax ñu koy tere c'est simple waaw moo tax ñu koy tere jul ji jigéen amul doole fii sax Sénégal dañ koy wax ah man de sama sama kuma sama jëkkër lu mu nekk laay nekk loolu la ñuy wax fii yow lan nga ma nekk gu ma dara lu tax sama jëkkër lu mu nekk laay nekk kon mooy musiba am na su jëkkër ji nekkee yahut bu dul julli nag loolu lay nekk fii xale yu jigéen yëpp loolu lañ gëm balaa ngay nekk dara nga am jëkkër léegi boo nekkee jëkkër sa jëkkër lu mu nekk nga nekk al inna lillahi wa inna ilayhi raji loolu ban diine la dama jëkkër lu mu nekk laay nekk fu ñu ko jàngee léegi sa jëkkër bu ko yàlla na dox mu nekk ku bon nag bu nekkee mbër looy nekk nga dem nekki mbër nga dem yor ki di tàccu si ba am na nuux ne leen man de damaa ñëw uballighukum risalaati rabbi samay yonent boroom waaye yemuma ci loolu wa ansahu lakum dama leen di laaye biir wa alamu xam naa min allahi ci yàlla maa la taalamuuna lu ngeen xam dama ñëw pour laaye leen biir xërëm yi ngeen di jaamu bu ngeen dee da ngeen dem safara ndax bokkaale yàlla du ko baale innahu man yushrik billah faqad harama allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimina min ansar waabudullah wala tushriku bihi shay jaamu leen yàlla bu leen ko bokkaale dara yàlla moo joxoñ yonent yàlla muhammad baaraam ne ko la in ashrakta la yaxbatanna amaluk wala takunanna min alxaasirin li ngay màgg màgg màgg soo ma bokkaale da ngay perte yàlla yemul sax ci muhammad xataa yonent ya dane law ashraku la xabita anhum ñoom sax bu ñu bokkaale dañuy perte mu doog a ñëw ci yonent yàlla muhammad kon man yàlla ma yónni ma ñëw di leen jottali message yi waaye ma leen di laaya biir maa ngi leen di yëgal na xam naa ci yàlla lu ngeen xamut ndax kat yonent laa yemuñ ci loolu mu ne leen aw ajibtum yéen sax man ma yaakaar ne da ngeen a waaru al istifham lil inkaar yi mu ne wa ajibtum lan moo leen jommal ndax da ngeen di weddi di yéemu am na benn xale bu fi juddoo ci koñ bi màgg yaroo ci koñ bi màgge ci koñ bi jànge ci koñ bi bëgg a waar waa koñ bi loolu mënuñ waa Sénégal mënuñu ko nangu moo tax boo dee yàlla nee na ñu ne hee kaña nga fi juddu kaña nga fi jàng kaña nga fi màgg ñetti kaña pourtant su waa ji demee Europe indi xaalis ñëw ne ana waa koñ bi ñëpp ñëw toog mu def ko ay bi ay rang paquet ay paquet 10 000 10 000 kenn du ko ne kañ nga fi juddu kañ nga fi jàng kañ nga fi am xaalis gars yi kay jërëjëf waay ay waay waay waay waay waay xale bi moo baax waay loolu la ñuy wax daal di ëmb dem seen yoon waaye boo nee yàlla nee na même bu dee sa papa sax see ñu ne la eh yow yow yow yow yaa ñu yëpp yow booy kañ nga juddu fii ba naan yàlla nee na même sa papa sax soo ko ne yàlla nee na mu ne la xool na njibi ne daa an ko hanki tan jibine da ay waare mande ko waare hanki loolu lañ may may defee sa sikki mu démb bi nga naan yàlla nee na waaw mais pourtant boo doon xaalis kenn du ne li nga def du dëgg de lu tax nit ñi bañ ñu ne leen yàlla nee na ah benn borom xam-xam nee na da ngay da ngay ñëw nga dem jàngi médecine nga ñëw fekk sa papa feebar nga ne ko papa mu ne ah nga ne ko foog mu foog ñu opérer la loolu amul problème man maa ko res nga dégg mu ne la ay joom loolu taxoon ma jur la nga ñëw fekk kër gi baraag la woon nga ni papa kër gi dañ koy daaneel air plus ñu mu ne la allahu akbar looloo taxoon ma jur la nga ñëw fekk mu yor saret nga indi 4-4 mu ne looloo taxoon ma jur la nga ñëw nga ne papa yàlla nee na mu ne la indi nga lu bees de ba nga juddoo ba léegi maa ngi jaamu yàlla nga naan danga may jàngal nu ñuy jaamoo yàlla gis nga lu tax ñu nangulee duñ nangu lii lii mooy problème mu yonent yi ak nit ñi mu ngi nii leer nañ ñi suñu kanam aw ajubtum wala yéen da ngeen di jaaxle di waaru an jaakum mu dikke leen zikrun fàttali min rabbikum bàyyi seen borom téere ndaw lu jóge ci yàlla ñëw di leen fàttali loolu moo leen di jommal loolu mënul nekk ah ba su ngeen déggee ku ne yàlla nee na rek ngeen ne non non loolu mënul nekk non yàlla dina la yónni yow tamit noo sant nga ni Saar ñu ne non non ñooñu duñ nekk ilimaan fii fii ku sant Saar du fi jiite mu ñëw naan waaw yéen xanaa yoo xamoo foo bokk yoo xanaa xamoo say maam waaye tamit dimbali ñu waay ah fii sax boo santoon nangam ak nangam ak nangam boo ñëwee nga jiite mais ay caam ay sow ay kii nii non non non non boy boy jaaral nii du fi jiite da ngay gis nit juddoo ci dëkk jàng ba. ndeysaan fële rek lay nekk du sax wax boo xee ñu ne ñoom duñ jiite suñu dëkk duñ te kat ñu ñoo raw ci dëkk bi bu amee problème xoolal nga gis ñu jël ko hors antenne kaay kaay suñ la waxee na ngay waaw waaw mbir mi nii la fekkat ca waaja lañ dem da nga koy gis du jeex ci dëkk bi waaw du jeex ñoom diw duñu kii ñoom diw ay lii lañ ñoom diw ay lee lañ loolu moo indil problème non yéen da ngeen di jox mi benn xale ñëw wala benn waaye ñëw ne leen yàlla nee na zikrun min rabbikum muy ni leen ak waar gu bàyyi ko ci seen borom ala rajulin minkum te ci yéen ñii la bokk xam ngeen ko cosaanam mi ngi nii leer nañ yéen ñii sax am na ñoo xam ne lekk ngeen laaxu ngeen téem waaye lan mooy seen borom li yunzirakum pour mu waar leen wali tattaxu pour ngeen ragal yàlla wala allakum turhamun pour yàlla yërëm leen ëllëg loolu mooy seen problème no dëgg dëgg dëgg ñun xale bi dafa tas suñu yaakaar yaakaaroon nañ ne wax dëgg yàlla mais mu ñëw naan ñu yàlla nee na ni ngeen di def du nii ni ngeen di jullee ni ngeen di taxawee ni ngeen di noddee ni ngeen di lixaamee ni ngeen di ni ngeen di ni ngeen di pourtant ni ñu bëggee ku jubanti suñu dund ah ñoo ne nii ngeen di defee du nii nii la ah la nangam bi nii la nuñ ko bëggee noonu la baaxee ci suñu diine diine bi tamit am na loo xam ne xamuñu ko dafa jaadu ku nga xam ne moo ko xam mu ñëw ne nii la su boobaa lu ñu war mooy ñun ñëpp ñu bàyyi lu ñu doon def ñu topp kooku lu mu wax parce que dëgg la wala léegi nag luy suñu problème ñun nangu nañ ko ci àdduna mais nanguwuñ ko ci diine àdduna moom bu ñu nee nii la ak nii la ak nii la ak nii la ñun ñëpp ñu def ko ah boo ko bëggee bañ a def sax ñu ne mais mais yooyu kii tey jii bu kenn jëloon oto rek def demi tour jël beneen voie bi nga dégg ñu ne waaye yéen ki xanaa dafa dof wala pourquoi parce que xam na ne oto bi côté bi muy dawee waru ko dawee léegi nag bu ñëpp toppatee toppee règlement boobu dëkk bi ne cooj bu benn waay defee safaan bi rek ñëpp yuuxu pourtant diine bi loolu mooy suñu problème diine bi da ngay gis koo xam ne ñoo xam ne safaan rek la ñuy def safaan dañoo dem sax bay tàmm ne loolu xoola weeru ñu nekk muy weeru rajab man li ma dégg ay musiba ci weer wi ku sangu weer wi ku julli weer wi ku woor ku lii am na yoo xam ne sax da ngay da ngay gis yàlla jaxran ko déet ah weeru koor moo gën a woor weer wi moo gën a woor weer wi te nit woor na ko gisul yàlla di ba pare lu gën a doy waar mooy ki koy wax amul yenn source yu mu ko teg day wax lu ko neex rek surtout nag rajo yii nii moo tax du ma wax rajo yeeg télé yi waaye am na ci ñoo xam ne ñu ngi fa ñu ngi fa di wax jaruñoo déglu de ndax dañ lay réeleraat yonent bi waxoon na ne innama axaafu aleykum aimmatil mudillin li ma gën a ragal ci yéen mooy ngeen am ay njiit yuy réeralaate ngeen am ay njiit yuy réeralaate innama axaafu aleykum xam ngeen lu ma ragal ci yéen ñu ne ha mu ne aimmatil mudillin ngeen am ay borom xam-xam yuy réeralaate yonent bi waxoon na sinfan min ummati isa salahu salaha nnas wa isa fasadu fasada nnas al umara al fuqaha ñaara ngi nii ci xeet bi bu ñu baaxee xeet yu baax suñu bonee xeet yu ban ñu ne ko ñan la mu ne al umara wal fuqaha borom xam-xam yeeg njiiti addina yi yonent yàlla nuux mu ne leen jaamu leen yàlla ndax kat man damaa ñëw pour fàttali leen ngeen ragal yàlla ndax yàlla yërëm leen xam nga luñ ko fay réponse bi mooy fa kazzabuhu ñu weddiku waaw ñu weddiku yemuñ ci sax nag waaye ñu bëgg koo fexeel mu daal di tàllal yàlla ay loxoom mu tàllal yàlla ay loxoom ne rabbi la tazar alal ard min alkafirina dayyaaran innaka intazarhum yudillu ibadaka tey kat yow yàlla maa ngi lay yëgal ne ñii wala yalidu illa allahu akbar nu mu mën a ñaan ak wuuteeg yonent yàlla muhammad nag wala sallallahu alayhi wa sallam keroog biñ ko dóoree taif ba deret ji sang ko yàlla yónni benn malaaka ne ko demal nga ni ko montagne yi say ndigal la nekk su bëggee rek ñu daaneel ko ci dëkk bi mu ne yàlla ñii bu leen rey amaana ñu jur ay doom yoo xam ne dinañ ma gëm waaye xoolal nuux moom dana yàlla gis nga kaw suuf moom sax boole nañ ci de ñun waa Sénégal laa tazar alal ard kaw suuf bul fi bàyyi benn yé ñëpp reyal dafa mel ne yàlla da ko ne lu tax mu ne ko gis nga yow yàlla innaka intazarum boo leen fi bàyyee innaka yow yàlla intazarum boo leen bàyyee fii lu mu ci teg ah ah dañuy réeral jaam yi yu dillu ibadaka te kat wala yalidu illa fajir ay bandi la ñuy jur ay mbërëki rappeur ki simbkat ba pare kafaara nekk ay yéeféer kon reyal ñëpp na ñëpp dee ah xoolal yonent yàlla Muhammad dana yàlla bàyyi leen ëllëg dinañ jur ay doom yoo xam ne dinañ ma topp allahu akbar ak a wuute yàlla ndeysaan bi bi mu waxee loolu yàlla comme am na tuuti lu ko toppoon benn kër jabaram ak doomam sax dañ ko weddi fa anjaynaahu yàlla nee na ma musal ko wallazina maahu ak ñi àndoon ak moom fil fulki ci gaal ga yàlla yettuloo ko gaal ne ko wasna il fulka bi ayunina defaral gaal nuux kat xolal gaal googu rek jël nay at ndax bi ko yàlla defarloo gaal li mu njëkk a def muy ut terrain jëmbat ay garab roose garab yi ba garab yi màgg ah mu dagg ko weer ko ba mu wow nekk menuisier loolu ñaata at la moo tax ngeen gis mu dund alfa sana illa xamsina aman wooteem dafa yàgg yàlla waxu ko ne defaral gaal rek mu dem uti ay bant fu muy jële bant yi dafa jëmbat garab yi bu ko gaa yi rombee di reetaan kullama marra alayhi alqawm eh yaa nuux sirta najaaran baada an kunta nabiya ah ñun de jommi nañ yow nuux nga nekkoon yonent tey nag moom mënise nga Séné gis nga nit ñi non démb dafa nuroog tey si nit ñi ñoo mënul nangu même sax imam gis imam bu nekk ministre léeg-léeg ma fajar gi ma rom tosal sama blouse topp tefes géej gi ma daje génn imam mooy imam imam imam waaw waaw imam warul daw wala c'est que nit ñi ñoo bëgg a jël doomu aadama yi daf leen ay malaayika munu nekk ay doomu aadama lañ xoolal nu di defar di defar di defar gaal gi su ko suñ ko rombee di ko ree yàlla di ko nettali yemuñ ci loolu waaye dañ naan ko ah ñun de jombi nañ suñu yonent ba de léegi menuisier la mais menuisier métier la looloo tax loolu la sénégalais yi gëm ba sëriñ yi duñ liggéey imaam yi duñ liggéey li yunus naan kala mo jiidaa heen jungo ngoona daati nawene mbomri kangaani ni wala yunus di wax kilifa diin du liggéey pourquoi te xoolal yonent yi dañ doon liggéey daawuda lu mu doon liggéey ah ah yonent yàlla Muhammad lu mu liggéey Idris lu mu doon def doon ñëw Nuux lu mu doon def voilà nit day liggéey boo liggéeyul foo looy dunde da ngay lekk riba nit ñi lañ lay jox du dagan ci yow da ngay ut métier mais ñun loolu lañ topp ba soo nekkee kilifa diine rek da ngay toog gars yi ñëw rek di waaw maara bu benn picc bu taayal la maara bu day nekk ci wetu géej gi benn su taxawee ñaar tànk yi ba ci yàgg benn tànk bi sonn mu ne nii benn tànk jën bu dee rek lay lekk du lekk mu ngi lu dund moom lañ def ci saabu yi xam nga tubaab baaxul wala tubaab bi moom la tuddee sëriñ si soo ñëwee ñu naan la la grand marabu nga naan nii di ngandal grand boobu ba yéen dañ la grand yaafuus loolu lañ la wax naxuma leen de picc la moom lañ def ci saabu yi picc bi dem leen tefesu géej ngeen xool ko même mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi aan ngandum picc nii rek lay def nii lu dee rek lay lekk du lekk mukk lu mu lu mu liggéeyal boppam day bàyyi ba nit lekk ba suur mu ñëw di ci for loolu musiba la islam du loolu adduna du loolu yonent yëpp dañ doon liggéey amul yonent bu amul métier benn yonent musul xëy toog ndeysaan bu mu defaree gaal gi yàlla mu ne ko dë- dugalal ci gaal gi xeet bu nekk ñaar xeet bu nekk def ci ñaar góor ak jigéen picc yeeg njana rab yi rab yi lépp xar yeeg fas yeeg lépp mu dugal ñaar bi mu defaree gaal gi ba gaal gi pare ba mu jël xeer yooyu def ci gaal gi départ rek mu gis benn waaju màgget ci benn ruux mu ne ko yow ku la dugal mu ne ko sama bopp mu ne ko génnal mu ne ko génnuma ñoom ñaar ñu xëccoo yàlla ne ko bàyyi ko mu paas waaw mu ne ko bàyyi ma wax la ñeenti biir yàlla ne ko déedéet na la wax ñaar rek ndeke iblis la ci benn ruq la dugg ci gaal gi toog mu ne ko bàyyi ma wax la ñeenti yàlla ne ko déedéet na la wax ñaar mu ne ko moytul ñaar ñaar yooyu laa alage nit ñi moytul xër xër laa alage aadama hmm? nga dugg dugg àjjana ñu ne la lekkal lépp bu laal li mu dem laal ko benn mbir nga dugg ci waañ cent bool ñu ngi fa cent bool plat boo bëgg mu ngi foofu ñu ne la bool bii nag côté bi moom ba bool bii bii benn bool bi bul ko laal ki la wax loolu génn rek nga ubbi bool boobu gis nga doomu aadama nag noonu la mel doomu aadama même sa doom ji boo ko yenee léegi benn bool ne ko bu ko ubbi buy génn di ko ubbi doomu aadama lu ñu ko tere rek dina découvrir lan moo fa nekk waaw il faut mu jéem man yéen même sa doom boo takkee bool bi sax jox ko ne ko bul ko ubbi bu demee ba fay mooy mooy bul ko ubbi mooy waxi lan moo koy ubbi foog mu teg ko jéem a xool lan la moo dal aadama mu ne ko moytul loolu beneen bi mooy moytul rëy man rëy lañ ma alagee waaw gis nga ñaari bàkkaar yooyu ñoo alag doomu aadama yi ba gaal gi pare mu daal ci dugal mbooloo moomu sunu borom subhanahu wa taala daal di alak ñeneen ñi des mu ne wa aghraqna alladhina kazzabu ma labal ñépp ñi desoon même jabaram ak doomam ca lañ bokk waaw ñépp la yàlla labal te ba leen yàlla labal yàlla asmaan dafa taw ndox suuf si génne ndox waaw asmaan taw suuf di génne ba ñaari ndox yi laalante fal taqal ma ala amrin xal qudir allahu akbar sunu borom mu ngi fi boobu kooku defoon loolu ba léegi mu ngi fi de jógewu fi de te ndoxam maa ngi nii guddeeg bëccëg di ñu tiim nga xam ne bu nu lànkee rek mu ne bismillah ma asamaan yaa sama wa yaa ard allahu akbar xoolal ba mu demee ba fendi ba yàlla alagee ñooñu ba pare ba mu ne fend yàlla mu ne wa xiidal ma ndox mi ñeer allahu akbar suñu borom mooy borom kàttan looloo tax doomu aadama yi moom dong lañ war a ragal moom dong lañ war a topp moom dong lañ war a jaamu borom bi nee na wa axraq naa labal naa allazina gaa ñi nga xam ne kazzabu ñoo weddi woon ñépp a dee kenn desul lan lañ weddi woon bi ayatina sama aaya yi innahum ñoom kaanu nekkoon nañ xawman ay nit ñoo xam ne amiin dañoo gumba dañoo silmaxa waaw daawuñu gis daawuñu gis dëgg ba topp ko loo wax rek ñu ne déedéet ñun sunuy maam ak sunuy baay waaw da ngay gis ponkal moo xam ne nga ne ko eh mu ne la déedéet man xaw ma loolu lii rek man lii rek laa fekk man lii laay def lii lii lii mooy lii lii rek lii rek lii rek pourtant mu ngeeg bët mu ngeeg xol mu ngeeg nopp waaye da ngay wax rek mu crazy crazy lii rek ñun lii lañ xam lii rek lañ fekk waaw lii rek dee rek lii lañ koy tere dee rek saay du noonu nit day xalaat xel pour lan la xëy xalaat bul ñëw rek fekk lii la rek nga ni da ngay dee ci loolu mën ngaa fekk dara fekk du dëgg kon mbokk yi lii mooy dar sa tey ñu ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu jéggal ñu njuum tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu